sànq euh, wax wax nga ko à deux reprises euh, moo tax ma il faut ma relever ko euh, contact bi naka la demee mooy président Macky moo toog woola ne la Tunkara mu liggéey ak man nangam wala téléphone wala daf la woo nga ñëw audience nangam nga dem nga dem toog <laughs> comment ça s'est guddi nga mhm. président li yàlla def dama doon liggéey AMA. agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie mhm. Birame fay mi ko jiite benn bés ñuy waxtaan mu ne ma yow danga am ay xalaat yu am solo mhm. dama lay jox mailu président mhm. nga bind ko di nga gis dina la tontu mu jox ma mailu président ma bind ko président tontu ma ne ma maa ngi rafet rafetlu nga bind ma te saa yoo amee lenn loo xalaat rek mën nga ma bind wax ma ko moo koy bind ñuy tontu ñuy bindante ma ak moom. ba bés mu ne ma na ñëw ma dalal la ñu waxtaan. ma dem fa toog ñu waxtaan lu yàgg. Euh, benn altine la woon après ñu waxtaan ma may ko téere yi ma bind yooyu ñu wax si réew meek yooyu euh, boobu juste avant élection yi di ñëw benn altine la woon. Euh, benn mardi. Mm. astafurlah euh, 11h la ma joxoon rendez-vous nag ay sa doon guddi ah. <laughs> léegi euh, loolu décembre la woon décembre daaw. Mm. nga kon élection yi doon février. Mm-hmm. donc waxuñu woon ay affaire nomination ak yooyu. Mm-hmm. benn mardi la woon lundi ba mu def décret arrêté nommé ma. conseil lu muy xaar si yow yu mel noonu genre. feuille de route beeg yooyu fiche de mission bi laaj nga ko. non xam nga buñ la buñ la no buñ la xasee ba nommé foofu loolu soxla nga koy laaj dañ la koy jox. Hmm. Hmm? Hmm. d'accord léegi. ay sax da nga bëgg ñu nommé la. Euh, non non non bëgg ma ko man je préfère ñu may jox ay marché suuf moo ma gënal daal moo gën a wóor c'est plus euh, c'est plus kii daal yow bu ñu joxee jox ma. <laughs> <laughs> mais quand même euh, Tounkara est que critique yooyu euh, gars yi doon la doon la doon la critiquer euh, metti woon na la metti la woon ban moo la ci gën a metti ou pas non awma lu ma si metti ndax ni ñu lay critiquer noonu la la ñeneen ñi tamit di gërëmee Aïssatou yow xam nga si dara ñun suñu liggéey yi ñu def liggéeyu mhm. tele mhm. bés bu ne Aïssatou ñu saaga la yow mhm. ñaata lañ la saaga chaque jour kay ñaata yoon tamit nga taseeg nit. Mhm. mu gërëm la sant la. Mhm, ñun maanaam ni ñuy nangoo euh, guddi noonu la ñuy war a nangoo bëccëg. Mhm. waaw loolu suñu liggéey ñoom ñoo ànd. am na ñuy kontaan comme am na ñoo xam ni kontaanuñu. te euh, dëgg dëgg euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ndax tey sénégalais. bëri na tey sénégalais yoo xam ne ñoom ëpp nañ ma jàng ëpp nañ ma demin ëpp nañ ma loolook loolu mais tey suñu borom amaana man la teg fii may xelal njiitu réew mi loolu ay sa lu ñu sante yàlla la ndax man si Sicap Liberté 3 gi laa juddoo doon jàngee Saint-Pierre fii yaa ngi euh, di dox diggante Gédo ba euh, romb ñaari tali bi yëpp. Mm-hmm. Euh, sama wóolare yi ñoom Matane Ndiaye Diop di leen di leen ziar. Mm-hmm. ñun tey jàngi fi yàlla su leen am amee bac yàlla su leen jaar lycée Blaise Diagne buñ suñu borom yóbbu ba ba fii day wane rek xale yi ni ko kenn ku nekk tey dafa war a jël jàng. Mm-hmm. ak fulla ak fayda. mu sàlloo ko suñu borom mun na la yóbbu fu mais mais xalaatoon na ne peut-être président Macky Sall dafa la. dafa dafa teg xel foofu xam nga piégé la parce que euh, yow kenn ku ne yaa ngi wax sànq euh, compte enfin benn contribution wala boog benn benn euh, poste boo defoon en 2014 di di di di wax ci affaire tilim bi nekk si réew mi yu ni mel mais tout le monde se rappelle quand même que amoon na ay position yu doy waar yu tàng yu métti yoo doon jël par rapport ak nguur gi Euh, nekkoon nga benn censeur u régime bu métti euh, ne sees que seen faute yeeg seen seen seen faute de grammaire syntaxe yeeg ñoomin seen yi nga xam da nga ko daan pointé euh, ak quand même virulence bi nga bi nga amoon ci Macky Sall ak régime moom que ni Macky Sall Euh, daa leen ne comme ni mu ni mu noppaloo ñu bëri am na ñu bëri opposition comme journaliste ñu bëri noppaloo na leen woo leen ci wetam euh, saxal leen benn tàngal mant après euh, voilà xaw leen décrédibiliser décrédibiliser ci ci dëkk bi ragaloo loolu loolu dal la yow. waaw président ndegam daf ma lan nga wax piège nga. waaw bon man. loolu du man du ma si mën a tontu du ma si mën a tontu. mais li ma xam daal mooy euh, li may def nii lu ma gëm la. est que man nag dafa am ñaari yoo xam ni dafa nekk si ma man duma def lu dul lu ma xam ak lu ma gëm. Mhm. président su ma laajee dara tey lu mu mënti nekk damay jël sama temps ma dem gëstu ko xool doon. Mhm. wax ko si nag li ma gëm man dama am euh, gis-gisu ne. Euh, Serigne Touba Xaadimu Rasul mm. beneen bu ma lay bu ma lay may tamit ay sët mm. président dama ko bindoon lettre ne ko man dama gëm ni suñu jàmbaaru réew mooy Serigne Touba Xaadimu Rasul mm. du Lat Joor Jóob boobu it bi ma ko bindee coow li bëri waa kër Lat Joor yi woo ma yow nangam sangam président ñu toog ma won ko lettre boobu mu ne ma lii de musuma ko woon gis mu ngi ko doon soo ko gis keroog ba ma ko wonee léegi euh, dama gëm Aysatu ne suñu borom fu mu teg jaamam rek jaam mën na ko foo jaamu sa liggéey si anam yi gën Sëriñ Tuubaa nee na moom si ñetti mbir lay dox te ñett yooyu moom man moom laa gëm xam-xam liggéey ak jikko ju baax si ñett yooyu daal laay dox fu ma tey fu ma mënti nekk si àdduna ak lu may mënti def man ñett yooyu laay jiital. Mm-hmm. mais mais euh, ni nga waxee noonu rafet na mais mais mais par contre en euh, est-ce que euh, quand ñi nga xam ne dañ jàpp ne Euh, Tunkar bu dee ah, facilité bi nga am pour Macky Sall woo Macky Sall nga doon xarab démb ak gur nguuram ñu woo nga rapidement nga dem sans te poser de questions est-ce que euh, euh, tamit nekkul woon ne xëy na nga doon sànni xeer tëmbal ak yooyu fuural pour Macky woo la nopp xam nga loolu tamit fii daf dafa xew Sénégal fi bëri na fi da ngay yuuxu pour Macky woo la ne la saxal dara nga noppi. waaw ah, loolu yëpp mën na nekk. mais dalu la yow. Euh, man de président tey yàlla daf ma may taw tawféex ba li ma xam ak li ma gëm léegi maa ngi ko koy wax directement. mais non avant laa wax processus euh, rapprochement bi ñaa laay wax. waaw mais loolu man. Hmm. li ma yuuxuloo woon pour moom moom mu woo la ak yooyu nekkoon loolu. doon dama doon wax li ma li ma xam ak li ma gëm. Hmm. tey réew mi dafa salte wala. communiqué gouvernement bi dafa am ay fautes. Mm. mais loolu constat la rek. waaw constat boobu bokk yi léegi la gën a bëri de te wax waxatoo ci. Ah, yaa ngi gis fautes yi. léegi ay sat ñaar fautes nga gis. waaw ah. communiqué bi mujj xool nga ko. ay <laughs> sat léegi prof orthographe grammaire <laughs> non faute gaa am na ba léegi. Euh, te man keroog rek euh, maa ngi koy wax. Euh, que soxna si nga xam ne moom lañ dénk loolu war na gën a góorgóorlu. parce que communiqué bi ba léegi. mi waaw waaw mais da da nga da nga ko. non léegi kay dafa gën a direct. ay kon kon dootoo wax ji xam nga di wax lu am solo est bi jubluwaay bi mooy jéebaane. Ah. wala wax ko fañ ko war a waxee. xam nga am na waxu biir kër. Ah. waxu biir néeg tey man. avant li nga xam nga avant du woon. Euh, conseiller spécial président. Mm. mën naa toog si télé bi jël sama benn euh, lettre bind ko wax ko président. Mm. lii léegi mun naa ko ko wax directement ay satu léegi loolu laay def. dafa économiser nga fee euh, salifa gi ñu mel. xoolal depuis ba ma président nee bul hésiter saa yoo amee loo ma bugg wax mun nga mu ko wax si mail. Mm. boobu laa bàyyi lettre ouverte. d'accord naa léegi ba ci des mooy euh, quand même euh, Tunkara euh, ragaloo ne perte nga waxuma crédibilité waxuma ki mooy saf boobu nga safoon xam nga ni nga ni nga ni nga ni nga kiiwee woon arñu boobu nga amoon Sénégal yi bëgg la ci noonu ah, vraiment nga ñëw ñun ñi ñëpp suñu genre gi yëpp nga yóbbu ñu presque pratiquement nga yóbbu ñu IPRES ma sax IPRES la anoon ah. <laughs> <laughs> parce que dañu ne woon man maa fa bu fit ñoo nga ñëw ëpp ma fit dégg nga donc ma dem raay ba ne maa ngi sama carte IPRES maa ngi ak moom ba léegi donc après nga jékki-jékki brusquement euh, euh, ñëw nii ci teer amoon gis nga léegi nag ngay waxee affaire yu nem lemal yooyu donc euh, loolu Tunkara nekkul un peu en en déphasage pas ak say convictions mais ak tamit Sénégal yi li taxoon ñu bëgg la ñu topp la moo ñu yuux ne Tounkara dafa perte amatul crédit amatul la benn crédibilité. ah waaw alhamdulilah. nangu nga lool déet xam nga man euh, Aïssatou am na loo xam ne suñu borom moo koy joxe. léegi su fekkee am naa crédibilité fa yàlla loolu loolu baax na de te léegi yow nee nga amatuma crédibilité sénégalais mais ah man de sénégalais yi may taseel de ñu ngi rafetlu de li li. mais léegi safatoo léegi Tunkara bàyyi nga. waaw léegi Aïssatou moo saf. Aïssatou moo saf xam nga yow temps yële nga doon xeesal Aïssatou safatoo woon. ñëpp ne Aïssatou Diop Fall bi moo xeesalam bi. waaw tekkiwuñ dara. mais léegi vraiment ko wax mu ne ah gis nga teint bi Aïssatou daa jàpp teint léegi. <laughs> Eh, Aïssatou entre parenthèse nag xeesal lan lan la si dugaloon yow tamit. non sax bii sax xam nga digression nga def nii gentiment mais euh, naa la ko may parce que gis naa la nga naa dégg ay waxoo xeesal non non moom xam nga comme li nga loo neex ngay def quelque part li nga gëm ngay def non man nag yàlla dafa maa neexoon ma def ko après ma neex neexatu ma ma bàyyi suba tam sama neexaatee ma ñëw diwaat après comme ça sax xëy na dinaa génnaat tunkara la tunkara d'avant. di nga génnaat sànni. dégg nga loolu loolu. <laughs> mais alhamdulilah non non sérieusement nag xesal man nag d'habitude nag su ma xasee xam nga man moom man quelque part lu ma neex laay def mais su ma demee ba bàyyi benn ba jàll si benn étape moom je je ne me retourne jamais. macha allah waaw non loolu moom. loolu man nag xam nga nag man damaa kiiwuma yooyu amaguma euh, cette fibre là. Hmm. Euh, nekk ay kii yooyu xam nga kii yu mag yooyu femmes yi kii yenn ay leader d'opinion yi kéew guma ko daal aayu guma foofu dina ñëw kon waaw ñaax ma si ñaanal ma ko dina ñëw nee na xeesal wax dëgg yàlla baax bàyyi na waaw non non non bàyyi naa ko bàyyi nga te baaxul nangu nga waaw waaw bon man bëgguma xasaa sama xarit bi koy def ndax parce que j'ai bëgg demee kilo foo mais sincèrement daal xam naa daal suñu tey bi daal dara gënu ko mais nag taxul ma xas na ñuy xeesal ndax dafa rafet ba dee nag wax dëgg yàlla bëgguma kenn mer su ko nag ñu wax si wax ji ñu mus def digression noonu ba nga ba nga bàyyi li may wax <laughs> waaw léegi. Tounkara euh, euh, fële euh, salaire baa rëy parce que nag li li la taxuma woo la nag ndax après bëgg naa jot ñëw nag am si la Tounkara bëgg naa la vraiment nga defal seefu conseiller nag wax wax ñu Macky Sall ni mu fi nekkee fan yi dëgg la du dëgg mais yii moom dama koy évacuer vite fait salaire bi rëy na dégg naa. Ah conseil spécial waaw il paraît que vous avez un gros salaire. bon je am na ñu naan daal fourchette 700 dem. ay un million et quelque genre yooyu. léegi man salaire bi xam nga benn affaire rek moo tax man. du ma ko wax. Hmm. parce que amaana. mais mais yow daa nga wax sa salaire yow fële. non deux ans amoon salaire. loolu loolu xam nañu salaire bon mais fii. comme du man rek la ñuy fay loolu am na ñoo xam ne amaana bëgguñu ñu xam seen salaire. mais man tey. waaw su fekkoon man rek maay fay sama salaire ma wax laaj ma wax la ko man. yow salaire ñaata la. Ah, man doon dëgg yàlla 300000 laa doon fayeeku. Hmm. Euh, temps yi gis naa ñu yokkal ma 200000 maa waaw cinq cent mille néew na de pour yow. ah man kay moo ma jaaxal. bon Aïssa xaaral ma def plaidoyer ñu yokkal. waaw waaw waaw après fin émission bi nga nga kii ko. Aïssa Diop ah Diop Fall vraiment mérité na au moins un million. waaw quand même waaw dëgg la. Hmm? non non dëgg la wax nga dëgg wax nga dëgg. gars yi war ñu nay tamit. Ah. bon léegi conseil spécial moom li muy fayeeku. waaw. maanaam am na yeneen conseils spéciaux peut-être ñoom bëgguñu ko wax seen salaire. looloo tax du ma ko wax. waaw mais yow après ñu wax ma. non ñëpp ñëpp ñëpp moom benn affaire bi dañuy. fay baax na wala baaxul. 700000 1 million et quelques yooyu baax na parce que yéen àgg millions ci la ma dégg bien que 1 million et quelques tam rëy na. Hmm. yow ko wax foo ko déggee. may laaj rajo Kankan. Hmm? ay ay bàyyi rajo Kankan bi. non xam nga ñun xam nga yaa source bu baax bi. non naa la wax dara xam nga man. Ah. man Amérique laa jàngee. waaw ah. fa laa tàmbalee liggéey. moo tax yow yow xam nga ne ñun amuñu problème wax salaire. waaw amoon langue du baax mais wax ma rek yow yow yow. léegi man léegi déggoo li ma la wax. Hmm. wax a la rek yow. non li ma concerné. dafa concerné ñeneen. non su ma waxee sama bos rek la. fii daa lay lëg la gudd nopp jàmm si gars yi. nee ma taalaay wala un million nga fekk wala wala un million ëpp na wala kii na maa ngi maa ngi ci euh, fu baax fii wala. chë tët tët. yaa ngi ma wax salaire ru gars yi de. non sa bos rek non yow tam loolu damay damay indi problème foofu damay indi problème foofu hmm. jaru ko. mais je sais que euh, je pense pas que ngeen àgg ay deux millions ah waaw bu la neexee nga pensé. xam nga pensé moom c'est libre. parce parce que quand même boo àggee 3 millions kon kon presque ministre nga quand même Tounkara quand même. Hmm. ay sa doo wax leneen yow xam kenn am na ñeneen ñu koy bu doon man rek la. Ah, ma wax la ko. waaw nangul naa la ko léegi.